ngeen jëf mbokku internet yi ñu ngi man mbégte bu baax a baax ak contentement fu waaye mën a ne si àddina du ñu bàyyi xel ñoo ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen di nuyu kilifa diini yeeg kilifa aada yi di nuyu suñu xalifa général sëñ Babacar Sy Mansour yàlla yàggal taxawaayam ba lépp li nga xamante ni naal na ko si kër maamam yàlla may mu àggalu ko ak jàmm di nuyu Al xaa ah xalifa général kullu murit moom aussi yàlla suñu borom yàggal taxawaayam ba lépp li nga xamante ni bëgg nañ si kër maamam yàlla defal ko ko noonu ñuy nuyoo bépp xalifa généraux di leen ñaan bu a baax yan bi yàlla na lépp lu ñu nal seen kër maam yàlla defal leen ko waaye di nuyu ñi nga xamante ni ñoom la caabi féetee ginnaaw su mel ne suñu frère Lac de Guiers 2 ñu bi teggil yi nga xamante ni moo tegu si kawam moo képp ki nga xamante ni nekkaal nag moom foofu yàlla suñu borom may liberté bu ñu delluwaat seen ay njaboot ñi nga xamante ñoo tëdd si lopitaan yi yàlla fëgg seen bopp ñu delluwaat seen ay njaboot ñi nga xamante ni ñoo tukki daan seen doole yàlla yombalal leen lu ñu bëgg ba daal di ñëw daal di investir waaye doon nuyu nuyoo sëñ Fallou Seck borom tab série Touba Xayra série Soxna Jaar ak di nuyu Laye Les sama waa borom flocage yu baax yi di nuyu Serigne Ndour ah, waaye di nuyu képp ki nga xamante ni yaa ngi ñuy topp partout dans le monde ñu ngi leen nuyu mbokk comme ñu ngi ko diggee wala comme ñu ngi ko yàgg di bégalee rek macha allah équipe chaque jour dañuy topp li nga xamante ni mooy actualité li nga xamante ni bu ñu leen ko indilee di ngeen am satisfaction totale ñu def suñu kéem tolluwaay kàttan dem jëlee leen loolu indil leen ko. li ñu mel nag moo waral ñu wàcc fi nga xamante ni mooy école de Balla Gaye certifié le grand coach ndam nag neex na am na ndam jël na mburaakeem boole ak soom di cons mais lu yëpp garaawul dañ koy nuyu mbokki yi bàyyi ko mu nuyoog yéen ñu waxtaan ak moom. Thiatou Daouda Fall fan la jëm Jackson ginnaaw bu ko Lac Rose daanee fan la jëm dëgg la lépp jox leen ko coach. Hmm. mbégte la war ak contentement jàkkaarloog yow. di la nuyu di la bàyyi nga ñëw teg internet yi. sant yàlla maa leen nuyu yéen ñëpp di nuyu monde entier di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yaajo di ñaanal monde entier di ñaanal yéen ñii borom micro yéen ñi nga xam yéen ma dégg micro di baalu ñëpp àq tey ñëpp àq tey ñaan na fi jàmm yàgg yàlla solo sot sot yokk fi sutura si yokk kàttan yokk man-mani di baalu àq ak lu làmb yépp di nuyu école de lutte Balla Gaye bii nga ma fekk. Mm. maa ngi baalu képp nag ak ah, mm. képp ku fi nekk tey mbër tey takk ngéem ak ku mbër maa ngi lay ak. Mm. wàccaa bi yàggoon na durant deux mois ci ginnaaw yi li woon na entre Fass ak Guédiawaye Caatu Daouda Fall war a bëreeg Papa Ndoye le premier juin Jackson war a bëreeg Lac Rose le deux juin tendance bi commencé mënewu ci ñaari écuries yi moo xam wala ñaari école de yi moo xam Fass que ce soit Guédiawaye mbooloo wala école de lutte Balla Gaye ba nga defoon fi émission. ba attaqué ki nga xamante ni mooy Socé ni ko doo indi mbër may daan mais avant ñu ñëw si loolu yëpp préparation combat bi nga xamante ni amoon ngeen ko seen diggante Papa Ndoye préparation bi revenir aussi un peu. metti torop wax dëgg yàlla yàgg torop ndax mën naa ni caat depuis combat Sa Thiès lañ tàmbale mhm. ñoom ñëpp si lañ tàmbale mayetuma leen jàmm mhm. di ko yóbbu Tiwaawan Pël fu ne contact gënaa fa ak ñoom hmm? géeju fajar ak lépp mhm. yaa daa dafa soo xoolee bi Youssou Ndour bëree ba xool ba pare sax su ko neexul di tëdd ka nelaw ndax la mu daj ci combat boobu rek presque li mu bëggoon si contact yëpp amoon na ko foofu mais teewul tamit ñuy liggéeyaat di gën a liggéeyaat ndax gis nga sama doom yi dama bëgg ci ñoom li ma bëgg ñoom maa ko xam ba duma leen may jàmm benn yoon li ma leen bëggal tànk doonuñu ko duñ am jàmm. Mhm. si laay doog a teggi tànk. Mhm. billaay walaay sëriñ. Mhm. combat metti woon na torop. booy bi bu dul man sax dafa metti woon ci moom dégg na lu ne. mu ne munoo ko daan ak munu koo daan ak combat bi daa diis ak daa def nii. man sax dama daan dem tëdd ba guddi sax tiit jékki-jékki jog di seetaan ay combat Pam Ndoye. ndax lan moment parce que xam naa ne jël na lu mu xamul. man jël na waaw man jël naa nangu naa luñ xamul. te liñ ko doon may mooy liggéey rek. fullaal ko faydaal ko. Mhm. te si loolu lañ nekk ci lañ dox ba lii am tey. Mhm. Mhm. mais mais avant tout proposition yi bëri woon na mais pourquoi le choix de Pape Ndoye lan moo waral ngeen bàyyi ñëpp tàmm ki nga xamante ni mooy Pape Ndoye. waaw xëy na tey jii mooy li ma wax rek. tey jii làmb lépp risque la. dañoo xool ki ci gën a diis ki gën a naqaree bëreel ñu jël ko. pour wane boppam. ngeen naa ngeen préparé moom aussi mu préparé ku xam Fass xam ni ay ndaanaan yàgg nañ fa soqeekoo ku anam la ñuy ñëwee tey ngeen dugg stade gis mbooloo bi en tant que coach moment boobu lan nga ba nga gisee sa gis ki nga xam ne moom ngeen war a jàkkaarloo lan nga yëg foofu. non Fass écurie bu mag la loolu ñëpp nangul nañ ne ko mais ñun yoruñu écurie bu ndaw tamit. Mhm. ndax Fass tey jii ñun ëppale nañ ko benn at ñun créé nañ roi des arènes te ñoom mos ñoo créé roi des arènes. Mhm. Fass da koy dégg rek coowu Fass bi da ngeen ko mais Fass mos am mhm. am ñun ñaar créé nañ fi des arènes. fi lu ne. te Fass tamit tur bee fa nekk rek léegi a ah. mhm. mais mbër dama la wax benn affaire kenn mënu ko def kenn mbër nit moo koy def boppam. Mhm. gis nga soo nekkee ci écurie bu mag tax xarañoo tamit moog zéro yem. Mhm. soo nekkee ci écurie bu ndaw tax xarañit xolal ka nekk sa écurie bu mag ba sax faale woo ko ndax foo ko jàpp di nga ko daan. te moo tax man la mbër kenn du ko def kenn mbër nit moo koy def boppam. xam nga def ko sa bopp bi mooy lan yaay am gëm-gëm. entraîner liggéey bàyyi lu bari wàcc lu bari. ngir xam ni kat lii ma nekk nii àndut ak lii. moo tax ma la mbër kenn mënu koo def kenn te man booy yi chaque jour loolu laay dugg seen nopp mooy man mënu ma leen def mbër yéen ko mën a def seen bopp. Mhm. caay-caay nag mën naa koo def ci yéen ndax damaa yor caay-caay. Mhm. waaw ak entraînement bu doy. ak boo xam ne boo simmee ko kenn du la jéppi mën naa koo def ci yéen. Mhm. ndax yàlla def na xam-xam boobu sama bopp bi. mais mbër yéen a ko mën a def seen bopp. coono bëri woon Pape Ndoye moo ko dàq xeex caatu Daouda Fall waroon dugg si Pape Ndoye léegi ñu bëri naan bu ñu jàppante ñu xam ne caat bëri la gën mënee ñii di wax kon xeex bi ñii di wax kër bëri mais duñ gis beneen cat Daouda Fall bi nga xam dafa matir ci combat bi mu mel ni am na beneen tàggat bi nga xamante ni tàggat nañ ko caatu Daouda bu bokkul tàggat biñ daan si moom. caat Daouda Fall moo ko dàq lépp xam nga ne Lamine dem ba keroog damaa taxaw waat si digg plateau. Mhm. soo sa faas wax entraîneur ak ma taxaw ne ko barke sëñ Touba. Mhm. billahi wallahi wa taala dinaa la daan. fan nga ko tegoon mystique bi doole bi bëre bi wala fan. dama koo teg benn si bëre bi. teg ko ci doole ji. teg ko si sama ginnaaw tamit. Mhm. ok parce que yaa ngi may dégg. Mm. dama ko teg si doole ji teg ko ci bëre bi teg ko si sama ginnaaw. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw dégg naa la bu baax. dégg nga ma waaw dégg naa la. kon noonu la demee nag. caat Pam doy dàq koo xeex dàq koo bëre. c'est que làmb ja sax keroog dañoo ñëw gis ni tey jii làmb dañ koy wor gis ni bëre bee gën a gaaw ñu bëre. ngeen ñu bëre ma bëre loo ko mu bëre mu jeex. parce que loolu jàngat boobu expert dëgg moo koy def. ñëw nga gis nga sa adversaire xam ni kat carrément kii tey dañ ko yàpp pour mu xeex. bëggoon naa sax mu xaw ko joxoon ñaari góos yu dal. góos goos yu daal. non boo doon xeexoon xeex dafa am ak tooñ dafa am. Mhm. bëggoon naa sax mu déplacé wu. Mhm. latéral ndax kee su la seerewul dëgg. Mhm. goranteeg yow du xeex. mais bëggoon naa ko mu ñamal ko ay goos goos yu baax. doo ko mën a jël ji. quoi qu'on puisse dire xam nañ ni ñu bëri dañoo taxaw wax lu làmb ñi nga xamante ni xam nañ làmb dëgg ñi caat daan na malgré daan na mais lu mu bëri teg ko si yoon parce que li mu pratique lu si ëpp dana forcé tey en tant que coach nan nga gisee loolu xam nga Sénégal moom dafa naqaree def tey jii soo doon bëree daan déll bu mënti ne dinañ ne la juum nga. Mhm. caat il fallait mu bëree noonu. ndax Pam Ndoye mënoon doon ponkal boo xam ne cent nangami kilo. Mhm. booy bi da koo jàpp ba pare xañ ko ne ko du ma la jàpp. il mhm. fallait mu koy forcer di ko bëreloo. booy bi lim forcer boobu mu forcer moo ko may lii mu am. forcer boobu mu doon forcer. moo ko may lii mu am. man gisuma ci erreur. gisuma ko ci de yéen yéen a ko ci gis mais man gisuma ko ci. Mm. Mm-hmm. allah mu daan ñëw si yow nga daal di tees a sinap selfie daa xew lamin lan moo tax nga bëree nga bëree feem. non mooy li ma wax xam nga tey jii làmb léegi. daf dañ koy innover quoi. Mm-hmm, innovation. waaw te man li ma wax keroog si plateau bi rek man maay le benjamin des entraîneurs. waaw waaw comme niñ ko waxee du ma xale sax mais dama koy waxee noonu. quoi am laa la tuddee. waaw ba tey man lu ma jël lu ma am rek jël mais tuddee leen ma ki nga xam ne fi ne moo nekk o top rek yow. Bellingham ah Bellingham nga gis. waa nangul naa la ko. dafa daan combat bee passé moo kan qualifié deux. mu ñëw ne ma dama bëgg su ma daanee qualifié ñu senab. mu daan Coly fay ñëw daw ñëw si man laaj ma téléphone bi ma jox ko. yaa may dégg. yàlla def tamit mooy loolu affaire yi neex. Mhm. combat bi mu daan tamit gis ngeen ko fa mu jugee foo mu jugee pare ak man xanaa lu mu bon man mat na cinquante mètres. ñëpp kay xëcc ku ko ñëw ñëw mu ñëw pousse la ñëw ma génne téléphone bi di ko jox mu ne ma bee maa Sénégal yow yaay Sénégal. mu nekk slogan waaw mu nekk slogan mu ne eh tey yow yaay senab man senabu ma man ma jël téléphone bi si laa senab ndax affaire yi daf ma bett tellement que ba gis nga li mën a senab sax normalul mm-hmm. waaw muy loolu mm-hmm. booy ay xale lañ macha maa leen di ñaanal jàmm ak tawféex mm-hmm. di ñaan képp ku ma bëgg nang ma bàyyi ak sama doom yi macha allah ak sama fule yi nga xam samay produit yi lañ ñii man maa leen defar de ba aas ba léegi kenn mosu leen toogal chaise maa leen di toogal chaise. Mm. te maa leen koy toogal ba faaw. macha ku ma bëgg na ma ñaanal seen ndam yi gën a yokk yokk ñu bàyyi ma ak sama doom yi. ayca mi ngi noonu yaakaar naa ba du ñëw jëli woon léegi Pape Sarr man ak moom. Mm. Pape Sarr joxe na ay proposition par rapport adversaire yi nga xamante ni Thiat war na mën bëreek ñoom Thiat war na mën bëreeg Modou Anta bu Thiès war na mën bëreeg Talfa war na mën a bëreeg ki nga xamante ni mooy Pokola Balde trois choix yooyu est-ce que coach tey d'accord si ñooñu non Pape Sarr nga wax. su fekkee waa moom loolu la gis nit ku nekk ak gis-gisam du ma dàq gis-gis boobu dama koy nangul gis-gis boobu. dama koy nangul quoi loolu du problème ah. ñoo ñëpp mu wax làmb la. Mm-hmm. am na spele droit mm-hmm. mais tamit mu am na feneen fuñ gën a teg suñu bët. muy fan non garaaw loolu wax baaxul. mais yéen Talfa combat la. ko caat dem leen laaj ko caat. mais yow yoon bi nga xamante ni mën nga ko tracé pour mu mën a bëri ñu non xam nga tey ji man entraîneur la mhm. du ma promoteur mhm. man daal benn combat daal lañ ma wax ñëpp biñ ma waxee dama koo bañ mhm. loolu jarul di wax ndax ñu ngi may tàmb ñu ngi tàmbalee dugal si TikTok beeg yu kenn xamul si yoo xam ne ni man caatu eh, yoof man maa yor man maa yorul mbër mu bëreeg moom kii xale la daa bëriwut ak caatu yoof non suy dóoree dina xam keneen ku muy dóor. gaal yaa nga foofu miir yaa nga foofu na dóoree. Hmm? mais Thiatou Daouda Fall moom bëriwut ak moom. moom kay nee na bu Thiatou di wax loolu xanaa tàgguwu leen moom bu leen tàggu woon wala mu tàggu Youssou daw soog ko dëkk ko ma ne ko ba nga jóge fii nga toog rek maa ngi moom a toog non bu barke Seydina Mohamed. billahi wallahi wataay si micro laa mën na daan ku dul Thiatou Yoff. moment biñ toll nii. ku dul Thiatou Yoff booy bi na laa daan mais man maa bëggul combat boobu. caat ah, bu mer la de. déggoo li ma wax bu leen seeka caatu yof bu mu dégg wax ji may wax nii. Hmm. pour moom damaa ragal wala dara de man maa bëggul sama mbër bëre caatu yof. foofu laa ko teg ba sa caatu yof da yàlla baax na walhamdulilah du ma si baax na. mais yéen ak Talfa non déggoo li la dàq ma ko kenn. Hmm. waaw de tàmb comme eh, déggoo ma la. làmb yooyu yëpp làmb la booy bi xale la mu ngi ci pare na pour bëre ñëpp amul kenn ko ma koy taamul na ko promoteur di contacter rek xam naa ne moom millions yi moom am na somme yoo xam ne nii fu mu dugg kenn du ko rejeté de kenn du ko rejeté booy bi daal lu ko bu tëgguloo waat daal mhm. xaalis bu bari lay bëre vingt bolo ko billet la jënd mhm. la ko promoteur fay la ko delloowaat mhm. kon xam nga booy bi la tey nangami million nga jënd lépp ay billet delloowaat ko kon xam nga booy bi moo ci am ndax booy bi moo fay ay sëriñ moo doon préparé ko promoteur bi fay lépp la ko jëndaat vingt bo bologu ay billet trois mille du caaxaan de calculer leen ko. yaakaar naa moom birim yëpp ay vingt bolog lañ jënd seen combat yi. caatay birim. noonu la demee nag birim ay caat. Mhm. caata daan la premier. nga jàpp ni ban fay nga jàpp ni moom la birima def. bala grosse am si moom ndam lu rëy lu daanoo ñëw rek du dara. da jéel la ñëw rek. Lac maa ngi koy ñaanal ndam li yàlla na ko jig Jackson defet bi yàlla na mujj si defetam def na li mu war a def yëpp def na li mu war a def yëpp Jackson entraîné na mhm. ànd naag ay mbokk waaj ak ñam war a waajee mm-hmm. sunu borom moo def li gën mm-hmm. du leneen lu ma ko wax am na loo xam ne ni nag gis naa ko neexuma loolu dinaa ci waxtaan ak moom mm-hmm. ndax tey jii maa ngi koy ñaan côté bëri bi staff bi wala mm, si côté tey jii du ma dugg foofu. am na yu bëri yoo xam ne loolu maag Jackson la. ndax tey jii nit soo ko bëggalee jàmm. bëggal ko du baax du fii nga koy waxee. ndax tey jii mën naa wax sama mëbët dem di ko wax nit jiitu ma fa. mel ni moom moo kere. mais man Jackson lu mënti xew. li ma ko wax moom xam na ne dina ko dégg sama Jackson la mm-hmm. sama raq la mm-hmm. sama xarit la mm-hmm. sama waay la amul sens interdit si man man it aw ma sens interdit si moom te lépp lu ma ko wax dina ko incha allah rabbi mais nañ jàpp ne làmb ji def na lépp lu mu waroon def jéel la ñëw rek kon daal li ngeen bëggoon si Jackson def na ko diggante mag Lac Rose mais côté état de physique bi est-ce que tamit Jackson wàññi poids bu wàññi poids jurul lu ko li li ko dal yëpp no man gisuma daa wàññi poids de. Mm-hmm. man yéen a gis daa wàññi poids jàpp naan daal entraîné na daal xam naa ni. Mm-hmm. man ay poids ay masse yi ay yooyu man gëwuma ko man entraînement laa gëm. Mm-hmm. te dama ko assisté si entraînement am fekkee ko. gis ko ba xoo xoolee kañ jeudi. kañ la open press. Jackson mercredi mardi maa ngi entraînement am. mardi maa ngi entraînement Jackson. Mhm. gisuma ci moom lenn lu entraînement. jël moom su ñëwee lu ne ngay dégg. Mhm. mais li ma ko wax na na am mental de fer mental boobu sox mu ci moom. ñim daan àndal démb ak mhm. bërki démb. na continuer ànd ak ñoom. bu ko dara jëlee loolu na gën a fonk ay entraîneur am na gën a fonk ay kët sam ñi nga xam ne ni boobu ba léegi ñoom la nekkaloon mm-hmm. na gën a fonk ñooñu mm-hmm. loolu laa koy digal amul leen lu ma koy digal façon yàqkat bu nekk nag di ko dégg mm-hmm. ku nekk dina ko woo di jéem a sikkal diw wala di sikkal diw di sikkal diw ku ci nekk xam na li ga ànd ak moom na jéem a segg ñi nga xam ne dañuy ànd ak moom te yàlla tax te ànd ñoo moom ngir fës ñëw ba làmb ja minute au minute nga ñëw bëgg a wax bëgg a fës bëgg a wan ñooñu dañ koy yàqal na moytu genre yooyu combat choc la rose combat choc la gars entre Birima ah ak Caatu Yoff yaakaar naa combat boobu ko doo bu caat daw dafa moom bee doo daw. Jackson su ma la waxee benn affaire di ko gëm suñ ma tegaloon adversaire am nii ne ko sut si kenn foo bul am bu mu am jàmm Diène Kaïré. ah moo Diène Kaïré pourquoi Diène Kaïré. combat la tolloo nañ dayoo. te combat bu neex la. combat daama ko combat bu neex a neex combat moo génn kay de. Mhm. ko dàq. Mhm. Mhm. moo caar yof li mu bëggal samay booy laa bëgg. Lamine nag moom caar yof bi lay bañ a dégg moom caar yof bi di nga ko dégg de. waaw man xoolal. <laughs> caar yof bi moom di nga ko dégg moom moom ngay bañ a waaye di nga ko dégg. war laa <laughs> ay ba bul ma reetal la c'est que booy dañ dagg nekk fi di ma dugal tugal caar yof nit ku baax la te mbër la champion la. mais bàyyi ko man maa bëggul bu bëri ku ma xam wala sama mbër. ah dëgg de. Jackson jàppee wu ma ko comme ay ku nekk géej waaye mbooloo ak yooyu Jackson dama ko jàppee comme ku ma bokkal ndey ak baay sama deret ndax fi ma teg. Mhm. bëriwut ak ñooñu. macha allah Jackson am wax naa la combat baa gi nii. waaw moo gën kay de moo gën kay de fu mu nekk fu mu taxaw fu ku làmba gi noonu su ma doon promoteur. Mhm. combat boobu laay tëgg. macha allah. Mhm. am nga xam ne gis nga bis fi nekkee yor sa sëy bi. di ko kalan kalan ba tas ko sa genre gee fi ne xale yu ndaw man mii da dem te da ngay sëy sa sëy yor ñaari doom ba ñetti doom ah. taxaw fi sa am problème sa jëkkër naan ko may ma baat di dem soo demee genre booy sëriñ nga fi dajal ay xale yu ndaw ñu lay téye di la saaga di la manipuler Aïcha moom Aïcha moom sëriñ atulu Aïcha daal maa ngi koy ñaanal sëyam ak diggante moog jëkkëram yàlla na leen yàlla gën a jubóole waaw yàlla na ko yàlla gën a jubóole te non nit ku baax la dama lay wax benn affaire man si làmb laay dund nag su ma gisoon ñàkk fayda ci moom mm-hmm. kon dama koy wax mm-hmm. mais mosumaa gis moom ñàkk fayda mosuma mm-hmm. koo gis si loo xam ne lu ma ko yebee la wala nangam ak sangam lu baax laa ko xamee de man doo dugal mais damay wax daal na sey sëyam bii te xam ne sëy du ay caaxaan booy jigéen ñi nag la ma waxoon laay wax ah. booy bu fi taxaw ne ba sàggane sa sey sa genre gee fi nekk xale yu ndaw ñoo fi nekk non dama lay wax rek sa sa genre gee fi nekk di la këyit loo di la saaga ay ndey di la mbéj di la dóor ci mbedd looy liggéey jox leen ko non dama lay wax rek dama lay wax da ngay gis jigéen joo xam day tas sëyam commencement nga mu naan damay liggéey sama liggéey laay fu ay demal liggéey ngi noonu kontaan si yow du wéy du wéy du wéy gën a kontaan ci yow di ñaanal école de lutte Balla Gaye yàlla na fi jàmm yàgg no non non non loolu moom sooy bugguma ko non non gentleman dëgg ak góor gu baax dëgg du dóor jigéen ndax da nga koy xoolee ni sa yaay rek ndax mm-hmm. jigéen mooy sunu yaay mm-hmm. na nga xoolee ni jigéen ñi ni sunu yaay mm-hmm. jigéen am na beneen tey jabar war na la mën a def lu la mett nga of ko sax bàyyi ko ci biir na tey jii dama lay benn affaire tey jii pexey jigéen garaaw na de mais est-ce que xam ne caay-caay góor xajul si jigéen gis nga tey jii jabar dina la tooñ wala mu def la dara xolal seeni caprice ngay nekk fa di mer naan kii nii ak nii mais ma la waxee benn affaire ñoom mën nañ laa tooñ une semaine nga def leen benn affaire deux jours rek mu tuuse leen moo tax ñun góor ñi nañ xam rek ñoom jigéen matul quoi nañ leen di mottali di leen ñaanal jàmm ak sutura te ñaan comme li nit ñi di wax naan ni seen wéeni sëggee noonu la seen xel mi sëggee nangu ko nanguwuma loolu nanguwuma loolu nañ leen di comprendre rek xam ne lu ñu def rek seen i caprice moo leen suy dugal mais àdduna mu solo le 9 sa xel si lan lay dem le 9 juin Kandji production moo xewle bisu ETDR waaw suñu bis te képp ku nag kuy dund làmb muy reporter ba muy supporter ba muy promoteur ba ñëpp amel nañ borom ETDR bés muy entraîneur yi ñëpp man de maa sa bis ba ma tamit maa ngi sa biir maa xamoo ma kànj ban porte la ma war a jox wala organisation suuf ban laa war a te man damay dem pour liggéey damaa dem pour liggéey ETDR ndax man damaa bokk ETDR bokk mafia def ca kot maa nga fa kon maa ngi woo ñëpp. Mhm. di woo ñëpp la neuf incha allahu rabi dañoo bëgg làmb ji double moteur Modja. Mhm. soq bu ndaw buubaa ay combat yi neex a neex Mama Lamine 2 euh, ak Boy Pire. combat yi neex a mhm. neex a neex la waa ji tëgg. kon damaa bëgg nañ xam bisu ETDR bisu ñëpp la. Kandji production moo woote. ma mafia def si code nag su ma waxee nag du ma damay bàyyi dama lim naa ñëpp Tafa Kandji ñoom ñëpp su ma limee rek damay jub Serigne Mbaye Mor Mbaye ñoom ñëpp suma ma rek damay juum Gora président Gora Xaadim Anta Seck Moussa faal ñoom ñëpp suma ma rek damay juum waa def si ko daal nag xam ne bés bi daal sunu bés la mm-hmm. te dimanche incha allahu rabi samedi rek man dèjà stade laay fanaan. man tamit samedi maa ngi laay fanaan organisation bi lu mu laaj naa ko def. ak lépp lu mu laaj. Mm-hmm. ku yor nag tey jii loo xam ne nii pour lu taaral bés la. Mm-hmm. wax ñu rek te xam ne bésu Kandji production moom warta tiit rendez-vous. le 9 incha allah arène nationale avec Kandji production ak Mafia Defsi Code le 9 arène nationale Kandji production moo woote Modou Dia bu Yoff double moteur Bouba war a jàkkaarloo soq bu ndaw Boy Pire Mama Lamine 2 journée bu neex di joxaat ñëpp rendez-vous le 9 juin foofu sa arène nationale mbokk yi lu fi neex suñu borom la lu naq di suñu mat di la ndax duñu bëggoon lépp neex dig daje beneen si beneen numéro ñu waxtaan ñëpp jaay ngeen jëf waa Dakar fi wal daggal